yéen senegale yi ay seytaane ngeen yéen senegale yi ay rambaaj ngeen yéen sénégalais yi ay dëmm ngeen man maa leen ko wax Sangoné Birame Jigéen kenn sañu leen ko wax ay dëmm ngeen amu leen xarit dangeen ngeen di lekk nit ki ba mu dee ngeen taxaw def ko célébrité balaa nit di am nekk célébrité biir senegal rek foog mu nekk foog foog mu dee foog ngeen rey ko ba kontaan ci li ngeen bëgg ngeen am ko. ci ngeen di soog a taxaw di jooy ñi fi nekk di jooy ñëpp ak di naqarloo ka naan waaw Sénégal waruñu def lii peine de ma ni peine du am senegaal yéen di ngeen reyante ba jeex tàkk yéen sénégalais parce que bandi yi ak reykatu nit yi yéen yéen leen defar yéen sénégalais yéen yéen a defar bandi yi yéen yéen a defar reykatu nit yi yéen yéen a jëmbat. band yi yéen a jëmbat raykatu nit yi yéen a jëmbat ñi nga xam ne ñooy agressé que def criminal parce que yéen ci boppam yéen a leen may doole yéen leen may kàttan yéen a leen di buux ci biir nit ñi waaw yéen yéenay buux nit ñi ñuy def lu bon ngeen di leen jay tey bu bandi génnee ëllëg ngeen téegal ndeyam ay xeer su bandi nekkee ci koñ ëllëg ngeen téegal ndeyam ci ay xeer waaye dangeen koy jay naan ko yaa fi ne naan ko yaafi fi ne su ko defee góor ñi bu ñu nekkee ay bandi jigéen ñi tamit dem nekkee ay bandi jigéen ñi nekkee ay bandi ay doomu bandi rek lañuy ñuy jur dama ne la yaay bandi baay bandi doom bandi par la force te xale bandi yi nag ñoo màgg nag ñépp lañuy rey seen ndey reyante bi day bari de waaw reyante bi moom day bari yaay bandi baay bandi doom bandi nee leen xale yi senegal li fay am commencé senegal xale bandi yi ñoo juddu xale yi fi nekkoon di def yi bandi mag ñi fi nekkoon di bandi paa yi paa bandikat yi toog ci grand place yi di def yi fi bandi meeru bandi yi nga xam ne ñooy jaay caakiri di jaay ay fonde di jaay ay cere ak soow di jaay ay mango foroxale ki ay dànq soo leen waxee ñuy jaay yàmbaa bi ci suuf maire yooyu ñoo jur ay doom doom yooyu mooy jigéen ñi nga xam ne ñooy taxawaalu ci tuur yeeg natt yi sol ndoket yu xasaw yeeg sër yu forox yi di xeeñ gétt di xeeñ géej ak yéet ak nëtatu di def ay tuuru mbootaay di baari mbedd meek a fecc ñooñu ñoo sëy ak band yu góor yi nga xam ne ñooy jaaykatu dorog yeeg sàcc yu mag yi ak trian yi ñooñu nag ñoo jur bandi bandi 2000 yi band yi juddu 2000 ñu ngi màgg te xoola xale 2000 yi dañoo sadik xale 2000 yi dañoo sadik dañ lay rey te duñ ci rëccu dara Aziz balaa nañ ko reyee dafa metti dañ ko rendi xam nga rendi jamun ñu ko de xam nga yéen ay jamat ngeen di wax dañ ko rendi comme kuy rendi xar foofu la Sénégal toll rendi américain du rendi tubaab du rendi bu leen ma jooy nag seytaane ngeen rambaañ ngeen ngeen def ak seeni rango ñii di jooy bu leen ma jooy mukk di ma tojal di couper sama live bi tapateel leen ma yéen yéen nit ñu baax ñii nit ñu dëgg yi ñëwee di jooy noonu seytaane te yéen ñiy jooy ñëpp saaga ngeen Aziz Dabala ba dagg yekk ngeen Aziz Dabala lu mel ni talaatay ndeer tam ngeen ko dëmm tam ngeen ko nooxóor tam ngeen ko góor jigéen tam ngeen ko caga wax ngeen ko lu ne Aziz nag dee na waaye dafa noppaliku parce que yenn dund yi ak dund ci yenn dëkk yi dëkk yoo xam ne ay doomeraam ñoo fa ne ak ay nit ñoo xam ne ce des illettrés ay nit ñoo xam ne duñu ay nit ay animaux la ñuy dund xeetu dëkk yooyu boo fa naree dund boo deewee da ngay sax sant yàlla noppale ko tey Aziz balaa tey ku ko yee yombal xiyaam ne ko dellu Sénégal danaan delluwuma day sant yàlla bu leen ma jooy ngir yàlla bàyyi leen seen jooy yi tamit balaa TikTok di foog ni musiba fi am et tapote leen gisagu leen dara senegaal hey gisagu leen dara xam nga ci fan ngeen di mujjee ci lekkante di nga gis ko dagg yàpp nit biir senegaal di ko lekk te du ko togg xanaa lu ma waxati danga koy da koy gis man waxkat bu mag bii maa koy wax dinga gis Sénégal nit ku jàpp nit di dagg yàpp wi di ko lekk en direct ngeen di yuuxu parce que dëkk ba day metti yéen actuellement def nañ leen le pays le plus dangereux de l'Afrique Sénégal avant dañ doon wax naa Nigéria moo gën a dangereux ci Afrique ay Liberia ay Congo maintenant c'est le Sénégal numéro un le pays le plus dangereux de l'Afrique le pays le plus dangereux de l'Afrique yéen lañuy wane ci euh, xam nga dafa am loo xam ne yéen da ngeen ko euh, xamul parce que ay dof ngeen yéen da ngeen foog ne da ngeen di yàqal nit ñi mais fekk seen bopp ngeen di yàqal parce que dafa am euh, benn website bu tudd Forbe Forbe day dugal dëkk yi nga xam ne ñoo gën a riis dëkk yi nga xam ne ñoo ëpp jàmm dëkk yi nga xam ne ñoo gën a pauvre dëkk yi nga xam ne ñoo peut sécurité mais actuellement soo paree nii nii may waxee yow boo paree bindal ci YouTube bi wala Google nga tàppe Sénégal est-ce que Sénégal a de sécurité da ngay gis dañ lay bindal Sénégal n'a plus de sécurité si par pars il faut faire très parce que au déterre les gens on brûle les gens dañ leen di wan ni Sénégal dañuy sulli ay nit di leen taal taal boobu ngeen taaloon kooku Kaolack mi ngi ci seen record ku war a dem Sénégal te nga xam ne da nga bëgg a dem Sénégal pour visiter xool dëkk ba nu mel nga war a dem Sénégal pour dimbali leen wara nga def fa investir dañ lay def avertissement boo xam ne dañ la naan Sénégal du ay nit ñu baax ñoo fa ne sécurité bi baaxul parce que dañuy taal ay nit dañuy dem ba fekk nit ku dee ñu taal la te nit nag moom soxor moom foofu la yem nit soxor foofu la yem fekk nit ku dee ba ñu suul ko nga jël ko nga taal ko donc foofu dafa des ci record du Sénégal léegi deuxième bi ci gën a garaaw bërki démb ngeen ne da taal seen sàcc noonu di ko tiitaroo ca cees te yéenay sàcc yu mag yéen sàcc yu mag yéen yéen a taal sàcc noonu ca Thiès. ba pare ngeen filmer ko dugal ko mu demati ci internet bi muy ñaari taal taal léegi nag chaque jour ñu rey nit yéen actuellement dañ leen po euh, dañ leen listé le pays le plus dangereux du monde le pays le plus dangereux de l'Afrique nom numéro un te loolu boo amee dëkk bu ma am tubaab yi duñu ñëw touristes yi duñu ñëw ñaar kenn du ñëw pour investir ca dëkk ba te yéen dëkk la boo xam ne amu leen dara. dëkk la boo xam ne da ngeen di dundu ci ndimbalu tubaab yi donc bu tubaab yi ñëwul touristes yi ñëwuñu da ngeen di gën a pauvre da ngeen di gën a dellu ginnaaw te yéen pauvre jegu leen parce que kattante rek ngeen di def yéen pauvre yi kattante rek di jur di kattante di jur di kattante di jur di kattante di jur di kattante di jur di kattante di jur mel ni ay muus di pàcc pàcc te doom yi ngeen di jur bëggu leen ci gàtt doom yi ngeen di jur bëggu leen ci gàtt bu ngeen tëjee daal yéen pauvres nekk ci seen këru baraak yi tawu daaw bi tawu 2004 bi ba tey mi nga ca biir kër yi ndox mi dem ba vert waañ wi nekk waañu baraak duus bi nekk paxu wanag amu leen darab bu baax rido sax amu leen ko da ngeen jël ay mosa takkale ko matelas bi dem ba génn ay mat du ngeen ci xalaat dara ci seen kër yu bon yooyu kattante rek kattante rek kattante rek kattante rek kattante di jur di jur di jur di jur xale yi di génn di nekk ci mbedd yi di nekk ay bandi xale yi di génn di nekk ay caga xale yi di génn di nekk agresseur xale yi di génn di nekk lu ne ñoo ñooy jur nag doomeraam yi nga xam ne ñoo ñëw fekk ko deful dara doomeraam yi nga xam ne ñoo ñëw fekk koo xam ne yëgul tinul doomeraam yi nga xam ne ñooy fekk koo xam ne dañuy nekk ci këram di liggéey di toppatoo njabootam ñu dugg ba ci biir këram rendi la léegi dañ lay fekk bi ci sa biir kër rendi la waxoon naa leen ko senegaal xëy yéen doomeraam yi Aziz Dabala lu mu joti gi yéen yéen Aziz Dabala su doon sax dafa nekk ku vulgaire ku mel ni mbaaya di cottanteeg yéen di leen wax lu mel ni talaatay ndeen ngeen rendi ko <coughs> dama ne Aziz Dabala bu doon dafa mel ni ku mel ni mbaaya di leen cott chaque jour di leen wax lu mel ni talaatay ngeen di leen yekk lu mel ni xame ngeen ne ah Aziz mii kat chaque jour mu saaga ñu nañ ko rendi su doon dafa nekk koo xam ne chaque jour nga gis ko ci internet bi muy génne data data sénégalais yi ngeen rendi ko su doon dafa nekk koo xam ne day nekk ci internet bi di toroxal di toroxal sénégalais yi ngeen rendi ko waaye Aziz a ngi ragala ragala ragala ragal dal yaru teey am respect du wax lu ñaaw du def lu ñaaw chaque jour yéen doome xaraam yi yéenay toog naan ko góor jigéen bi góor jigéen bi góor jigéen bi te mosu leen ko gis mu nekk góor bu soloo ngeen ne ko solu góor jigéen ngay solu te yéen yéen a gën a nekk góor jigéen ndax yéen waxuma la pain waaye ay fiisoo ngeen di sol doome xaraam yi ndax yéen ci boppam yéen yéenay def yëfi doomeraam nekk ay góor loolu amul fenn ci àddina di sabaru jigéen ñi toog ci biti ci siis jigéen ñi taxaw góor ñi toog làng géew bi di fecc ba fajar yéen yéen a jàpp kooku tey fekk ko biir këram ngeen fekk ko biir këram yéen doomi xaraam yi non mosumaa gis lii man moom li ma santee yàlla suñu borom sant gi ma sant yàlla suñu borom du yóbbu gi ma yóbbu Amérique waaye génn gi ma génne Sénégal rek ci dëmm yi loolu moom lu ma ko gën a santee yàlla dama ko ciy dolli génn gi ma génn si te nag ndeysaan <laughs> man duma nit Aziz Dabala décembre bi rek fekk na ma Gàmbi ndeysaan Moctar ba Mbaye décembre bii fekk na ma gàmbi moom taar ba mbaay ndeysaan ah, sama xol bi dafa metti tey sénégalais yi yal na leen suñu àq dam sénégalais yi ni ngeen di tàngalee xolu nit ñi ni ngeen di daggee xolu nit ñi ni ngeen di toroxal doomu aadama yi di toroxal jaamu yàlla yi yal na leen suñu àq dam man nag mosuma am lu ma metti waaye tey jii sama xol bi metti fajar lan moo xew Aziz Dabala est ma naan xëy na dafa feebaroon wala dafa accidenté ci yoonu Touba bi mardi taali ah waxuma la rendi Aziz Dabala ñu rendiwaale xale ba nekk këram xale bii jóge Tamba nekk xale bu ndaw yaayam dee bàyyi koog ñaari rakkam yaayam dee bàyyi koog ñaari rakk xaw ma ñetti rakk xale bi Aziz Dabala gis ko mu ñëw dakaar am di 16 ans xaw ma 17 ñu boole koog Aziz Dabala ñëw jàpp ko ci loxo ne Aziz xale bi amul ay waajur waaye gis nañ ni yow borom yërmande nga téyel xale bi nga dimbali ko. Aziz jël xale bi teg ko ci ci wetam di ko dimbali yóbbu ko seen kër ne yaayam kii sama jarbaat la seen waa kër yëpp jël xale bi jàpp ko comme jarbaatu Aziz ah su Aziz demee fecci wala mu tiyaatar lu mu am bokk ko xale bi xale bi jël xaalis ba yóbbu Tamba dimbali ay mbokkam ñu am xaritu Aziz Dabala bu baax kooku moom xam gisuma ko nag euh, mi nga Amérique Pape Medina mi asis Tabala di tudd kooku moom dafay dee moom gisuma ko tey waaye day dee kooku dina jooy ba dee kooku bërki démb rek dégg naa jël na alal ju dul jeex yóbbante ko Aziz Dabala ne ko séddaleel paasu màggal ba Aziz yóbbul seen waa kër Aziz tey jii dégg naa la waroon a dem màggali yéen doome raam yi doome xaraamata njaay yi nga xam ne dara saf leen dëmb xaraabata njaay yi ñoo xoon lekkatu nit yi nga xam ne benn dëkk amul dëmm doo dem benn dëkk ñu ne la ay dëmm lañ senegal rek ngay dem ñu ne la ay dëmm lañ yéen ngeen fekk jàmbur bi ci biir këram rendi ko rendi comme kuy rendi xar yéen a bon man de bañu leen lee tax ma bañ leen bañuma leen ngir dara lii tax ma bañ leen dama xool ba xam ne da ngeen soxor da ngeen bon dangeen iñaan xolu dëmm ngeen yor ma bañ leen maa dem ànd jeeg Gambien ku naqari tojal sa cottu ndey maa xool ba mu neex ma ma dem àndi jeeg Gambien yi bàyyi Sénégalais ndax xam naa ni ay dëmm lañ suñ la jekkoo dañ lay rey nii ngeen def Aziz Dabala su ma su ngeen ma jekk woon nii ngeen may def da ngeen may rendi moo tax ma bàyyi leen dem àndi jeeg Gambien ku mu naqari nag tojal sa cottu ndey ay dëmm ngeen maa leen ko wax sàngu ne biram jigéen te leen metti ak na neex tàngal gi ngeen tàngal sama xol bi tey sama xol bi ngeen tàngal tey jàmbur bi ngeen rey Aziz balaa xale bu yaru bii xale bi nga xam ne bokkul dara xale bi nga xam ne deful dara yaru du seytaane du këlëbu ruube buy ànd ak artistes yi du ànd ak kenn di la këlëbu ruube yamale ñépp Pape Diouf Sidi Diop artistes yëpp Aziz du wax lu ñaaw xamul lu ñaaw ragal ah yéen ngeen fekk ko fa mu ne ngeen rey ko bu ngeen ko jamoon sax mu noppaliku waaye ren di xateet toroxal doomu aadama moo taxit ci toroxtaan gi rek ngeen di dëkk xamoon ngeen ni yéen bu ngeen fajar gi su ma yeewoo dem jënd ji sama côtelette yi war koo saaf ah ne nii yem ci kanamu Ndeye Guèye bi ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ma ne lu xew ñu ne ma Aziz Dabala lañ rey ma dugg ngeen wax lii xamoon nga ne naa leen taalal live yéen yéenay ñekki actuellement parce que ñàkk mooy sauvage te léegi yéenay sauvage yi ñi ngeen jàpp naan leen ay ñàkk muy ivoirien yeeg ghanéen yeeg nigérien yeeg malien yi congolais yi ah ñooñu ñëpp ngeen naan ñakki xam nga ñooñu dañ daan def jëfinu sauvage ngeen tuddee leen ñekki léegi tuddee leen ñekki léegi ñooñu duñu ay ñakk yéen yéen ay ñekki yéen yéen ay léegi c'est vous les sauvages maintenant sauvage amatul de yéenay sauvage yi Aziz nag ki ko def lii jarul métitlu léegi ñu téegal ndeyam ci kafe bi ndax lii crime organisé la loolu moom te buñ ko jàppee yuuxu dina jëf fuñ ko foogewul ki def lii Aziz crime organisé la ku ko xam waaw parce que sénégalais ñi la xam ñoom ñoo lay coup sénégalais ñi lay rey ñi la xam la lii dañ ko préparé benn muy doomeraam yi toog ci àngalu koñ yi xale yu góor yu doome xaram yi nga xam ne teg tekkiwuñu dara teg seen baraada di attaaya toog ci àngalu koñ yi di duul doomeraam yooyu doome xaram yooyu ñooñu benn ñoom ñooy ñi ko def parce mën nañu gis ni kee ngi romb yor ñaari téléphone di dem a ko ñëw ñu ne jeexlewul dara <coughs> ñaar wala mu nekk koo xam ne day ñëw di ko fréquenter di lekk suba ngoon guddeeg bëccëg ndax ki def lii da ko def ndax dafa xam kii ku xam kër gi la ku xam Aziz la parce que yow nga rey nit ki rendi ko ba mu dee nga ba ko ca néegam sàng ko dem fekk xale ba ca biir duus ba ca biir duus ba nga jamat ko ba butiti génn nga sàng ko ba pare nga jël seeni téléphone jël bien ya nekk ci kër ga yëpp ba pare tëj bunt bi ndànk rocc caabi ji bàyyi leen fa ñeenti fan dimanche ba mercredi yaa toj sa cottu ndey dëkkandoo nag na leen police woo police na woo dëkkandoo yi même bu ñu reyul nañu leen àtte assistance non personne en danger parce que man mënumaa comp man man xaw ma sénégalais yi man ay nit lañ xaw ma ay golo lañ xaw ma ay xaj lañ xaw ma ay dëmm lañ xaw ma luñ doon yow naka ngay nekkee ci kër dëkk ak nit ci building nga ne dalay romb waa ji wax naan waaw ñun xam nga dañu amul limite maak Aziz mais léeg mu romb ma nuyu ma beneen booy bi laa gënoon amal affinité mais Aziz moom dañu amoon barrière ban fatu ban façon barrière fatu ban façon barrière ngeen war a am doome ji naka ngay dëkk ci kër gi amal moom barrière loolu yëfi doomeraam premièrement naan waaw Aziz dañoo amoon barrière ban xeetu barrière nga war a am ak Aziz ba tax nga dégg yuuxu ci appartement wam doo dem nga fëgg bunt bi ne lan moo fi xew mais yow nga dégg ni nit kaa ngi yuuxu nga taxaw di duul nii rek ngeen nekkee sénégalais yi du ngeen dimbali nit ba mu dee ngeen génn di duul naa dégg naa yuuxu yi yow lii boo ko defoon Amérique mbaa France dinañ téegal sa ndey ci biir kaso bi ndax ba nga déggee yuuxu yi ca nga waroon a toog même ci sa ngoon sa sax nga ne kii doon yuuxu xaaral ma dem xool ndax sama dëkkandoo la lu doon yuuxu parce que nee nga yuuxu bi du yuuxu ambiance yuuxu bu fort la te yuuxu boobu ku ko yuuxu yuuxu woo jàmm mais man dama waaru man Sénégal man sant yàlla naa sant yàlla saa ngoone biram jigéen daa ngoone mbooj mbaay pende machine mi daal woytaa yaa ni damel ma bu saab sa njaay birima daale ab sa njaay bi ma duggee Amérique 2008 ma ni bàyyi naa Sénégalais yi lay rëccu ma ko xam nga nit di nga bàyyi ay nit toog di ko rëccu waaye man bàyyi gi ma bàyyi Sénégalais yi rëccu ko parce que chaque jour ngeen may wan loo xam ne daf ma naan aha yaayay bàyyi Sénégalais chaque jour may gis loo xam ne ma yey man ma ba sénégalais yi te képp kuy nit nag te mel ni man di nga ba sénégalais yi parce que dañuy gën di bon du ñu ay nit sénégalais yi du ñu ay nit hmm. Aziz Dabala dee na yàlla na ko yàlla yërëm waaye togg naa petit pois bu neex ma man soos bii xam doomi xaraam kuy wax ak nii yéen maam Matar Gueye doomeeraam ji caga bu màgget bi lu jin njaaga yaay njaag dama ne yow Mame Matar Gueye doome raam jee caga bu mag bi lu jin njàgg yaay njàgg ndax yow Sénégal bu tàkkee xale yi bu ñu amee fit yaa leen may fit ndax yaay poussé xale yi ñuy attaqué nit ñi te yow rey gu rëy gii am senegaal danga ci waroon a génn du nee nga dangay xeex valeur yi lan moo gën a nekk xeex valeuru crime bii am biir Sénégal yow Mame Matar Gueye su ñuy rey Sénégalais yi doo génn su agresseurs yi amee doo génn suñuy di nit ñi doo génn su sénégalais yi xiifee doo génn su sénégalais yi di torox doo génn fi mu ne kenn gënul kenn du la dégg sàcc yi rey nañ leen taal nañ ay nit ki doo kenn du la dégg yaa ngi xaar wax li sekk mu sol tubéy bu verte zone rouge wala mu sol peew wala euh, nit ku mañeeru wala gan gu jóge France ñëw seet si gouvernement bi nga def ak sa kanam gu ñu sa mel ni mango foroxal ak sa ñaawaay boobu ngay ñu la mel ngay ñu sa mel ni cancer génn naan waaw valeur yi la ñuy xeex duul lan moo gën a nekk valeur bu bon ci rey ay nit comme kuy rey ay weñ ndeysaan Aziz dafa mel ni dafa xamoon lii Aziz kër Mama euh, Mama Gassama lañ daje Gàmbi ca dëkku góor ñu baax ña Gàmbi yal na yàlla sàmm Gàmbi parce que man li may tiital Gàmbi mooy jikko ju bon ji sénégalais yi jóge ñu yóbbu ko Gambia yal na yàlla sàmm Gambia yàlla bu fa jikko ju bon ji dëkk parce que dëkkandoo day wàlle ba ci ay doxot Aziz Dabala bi mu ñëwee Gàmbi ànd ak Tarba Mbaay bi mu àndeek ba Mbaay ndey sànn mu ne ma Mbaye ah Mbaye nag da war a ñëw senegal nag ma ne ko asis man du dem senegal parce que Sénégal nit ñi baaxuñu mu ne ma Mbaye bi lay xamoo sax li nga wax mu ne ma Mbaye sénégalais yi dañu soxor mu ne ma man mii gis nga lii. man bi ma dalee ba mu dalee Aziz bettu ma Aziz nee na ma moom bu dëkkee ci kër un bu ñu xamee ni fii la dëkk bu génnee ñu dajj kër gi waa koñ bi ñooy dajj kër gi sàcc bagages yi ay doomeram lañu ay sàcc lañ dañ lay gis yàlla boo vidéo sa kër wala nga clip wala nga gaare sa oto wala nga yor ñaari portable bu ñu la gisee nga sañse sañse bu rafet rek di dugg sa kër ak génn suñ la gisee nga sañse sañse bu rafet di génn di dugg ak génn dañ naan xaaral kii yor na dara dañ naan kii yor na dara ñoom waa koñ bi ci boppam ñoom ñoo lay jaay man mii bi ma nekkee senegaal jamono yi may nekk Sénégal chaque semaine ma yóbbu suñu waa koñ police téegal seen ndey ñoom ñépp kaar bi gaare laaj ko waa grande Dakar ñaari tali ga ma dëkkoon laaj ko waa ñaari tali ga ma dëkkoon chaque semaine ma dem commissariat Bass Guèye ci Ibou Diop mu ne man lan la ma ne ko essence ngi nii mu ne man lan la ma ne ko koñ ba yëngooti nañ kaay téegal ma seen kaay téegalal ma seen ndey ñu takk leen ñoom ñëpp comme kuy takk ay xar te kat yu bon yi say mbokku ñëw ciy jiitu bu ñu lay sàcc say mbokk ñoo ciy jiitu man sàcc gañ ma fi sàccoon samay doomu soxor weesuwul nga fekk jàmbur bu la deful dara <coughs> te yéen doomi xaraam yi rayaate band yi rayaate wuyu yi rayaate agresseur yi rayaate seeni ndey yaakaaruñ leen seeni baay yaakaaruñ leen seeni maam yaakaaruñ leen jëriñu leen dara dëkk ba ngeen ne jëriñu leen fa réew ma ngeen nekk jëriñu leen fa tekkiwu leen dara ci dëkk bi Aziz Dabala ndeyam mag la magam bu góor bi soo seetaanee interview bi da ngay jooy parce que góor dëgg bu demee ba jooy nga war a xam ni kii li mu li mu ñàkk metti na ko magam bu góor bi dafa jooy mu ne parce que ñun Aziz moo ñu yore Aziz moo ñuy dimbali Aziz moo ñuy taxawu tey rey nañ koo xam ne moo gën ci ñun lekkul dara bàyyi leen démb bërki démb mag ji nee na sandi la fa jóge xaritam yónnee leen xaritam may leen xaritam bu nekk États-Unis yónnee ko paasu màggal yónnee ko paasu màggal ne ko joxal ma nit ñi séddaleel ma paasu màggal peine moom du am Sénégal bu yeboo xola ku yebul bind sa miraas rek toog te xam ne rey gi day yokk peine de mort du am Sénégal de peine de mi ngi am ca jamono yi Léopold Sédar Senghor ak abdu Diouf jamonoy Senghor dafa amoon Sénégal Ablaye Wade ñëw dindi ko parce que maam Abdou Aziz Sy Dabakh moo daan xeex yooyu moo ne woon ku rey nañ la rey sëriñ dëgg ba moo daan xeex loolu sëriñ dëgg ba sëriñ dëgg ba moo daan xeex peine moo ne woon ku rey nañ la rey Ablaye Wade nag ba mu ñëwee toog bëgg lu neex sëriñ yii fi ne sëriñ yu bees yi ndax sëriñ yu bees yi dañuy tooñ te ay reykatu lañ te dañuy toroxalaate buñ leen jàppee war leen a rey wala ñu war leen a tëj seeni taalu bi dañuy génn ne kenn du leen tëj sëriñ buñ ci nar a rey sa taalibe day génn mu ne bul rey sama sëriñ bi rey ma Ablaye wàdd bu ma gisee loolu ba xam ne loolu arrangé wu ko dafa jóg ne nañ dindi peine de mort wàdd Wade moo dindi peine de biir Sénégal te actuellement peine de mort dootul amati Sénégal bu ko Ousmane sonk yëkkatee ba sëriñ yee koy njëkk ne ko génnal dëkk bi parce que sëriñ si ci boppam ñoom ñoo bëggul peine de parce que ay defkatu déli lañ ñoom dañuy rey nit nit ñi ñoom dañuy yónni taalibe yi ñu leen di rayal te ku yónni taalibeem ñu rayal la nga rey nit ñu war laa rey yow yaay taxaw nga ni peine de du fi am. metti man Sénégal bu ngeen doon dee vingt millions yi ba jeex sax sama gat newu ci vingt millions yi laa wax su ngeen doon dee ba jeex sama gat newu ci. Sénégal. su ngeen doon dee vingt millions yëpp ba jeex sama gat newu ci waaye Aziz Dabala mi ñu rey bi ma gën a metti Sénégal lii ci la bokk benn rey nañu ko jàmbure rey nañu ku yaru rey nañu ko dal rey nañu ko réglé rey nañu ko baax rey nañu ko am njëriñ rey nañu ko mën a dimbali ay mbokkam rey nañu soutien de famille ñaar ren rendi rendi non musuma gis lii rendi gisagu leen dara sax Sénégal dina gën a metti rendi gi commencé gul de <laughs> rendi gi rendi gi commencé gul nee naa leen yéen toog leen dans deux ans rek ba xale 2000 yi màgg xale 2002 yi déedéet xale yi juddu 2004 2005 2008. ñu judd 2004 2005 2006 2007 ba 2008 band yu ndaw yooyu doomu Marème Naari doomu Marème Naari bàyyi ba ñu màgg <coughs> bu doomu Marème Naari màggee Marème Naar ñiy fecc di suus di wadd ñiy suus di wàcc ci suuf ñooñu bés bu ñu màggee bés bu nu màggee bés bu nu màggee bés bu nu màggee bés bu nu màggee ci ngeen di gis loo xam ne biir Sénégal yéen sénégalais di ngeen jël seen bagage yi di daw di làqatu ci pays voisins yi ku leen ko wax nag ngeen foog ne da leen di nax toog leen rek Sénégal rek parce que yii yëpp dangeen ko bay bayal yëfi doomeraam yi am yéen yéen ko bay bayal yéen ko seetaan parce que bu ñuy def ay yëfi doomi xaram di def ay yëfi bandi yéen sénégalais yi da ngeen di taxaw di jay bandi yi man keroog ba ma seetaanee ci télé Sénégal xaw ma YouTube en tant que émission ñu jël ay bandi dem ba jàmm gën fekk fa ay bandi lu mat quarante bandi ñu toog ñu ne leen yéenee ñan ñu ne ñu ñooy bandi yi waaw ñu ne leen lan lan la ñu naan waaw dof nday day dof dof lu mani dof nday du bandi dof nday du bandi xola fii xol bandi fii lañ ne dama ne dof ndaya ah, ñum fëgal la sa sëpase fëgal la ni nii jël paaka xola di jam sa bopp en direct naan nii paaka bi di xotti sa yaram bi en direct bandi yi ñiy jël lañ seen di lelli seen yàpp yi en direct muy yuuxu naan wuy sama nday man ci tele bi maa ngi yuuxu waaye ñoom ñiy jam yuuxuwunu ma ni nag aha léegi fii la Sénégal toll xale yi loolu am xëy na am na ñu ko seetaan ñi nekk ci laay bi xëy na am na ñu seetaan lii may wax jamono bi dof mbay dof nday lakkalee biir Sénégal ñu dem di interview ay bandi ca jàmm gën xale yu ndaw ay xale yu ndaw laala ne ñu leen di interview xale yi amaguñu sax vingt ans ñu ne dañuy won dof ndey ne ko ñoo la gën a bànd ñiy jël ciseau di ko xotti seen yaram yi en direct ñiy jël lañset di xotti seen der yi yàpp wi naan facat naan dof ndey xala xaarama wan la fiyaa ñu ngi di ñaas seen bopp ma naan allahu akbar kabira la hawla wala quwwata illa billah min sénégal ange billahi minal sénégal ñooñu nga foog ni bu ñu soxlaa xaalis duñ la dab ci mbedd mi dañ lay dab ci mbedd mi jamat la ba nga sedd kuy jël paaka di ko jam sa bopp boo tiimee ni danga koy jam doo ko yëg